gaal gi ñoo ko moom nañu rafetal waaye xam nga ni ndaw su jigéen siy génn ñu ni député la xaw ma di attaqué Cheikh Seydil Mouhamadou Moustapha Sy erreur gënu ko rëy dama yaakaar ni nag amuti bokk wala amul bàjjen wala amul nijaay kilifa gu toll nii Cheikh Seydil Mouhamadou Moustapha dañ koy wormal ndax ca deret damu bok waye dañ koy wormal ngir rew mi bàyyi xel giñ ko bàyyi xel dañ koy wormal ak mbolo mi nga xamanteni bi jité ne len doon sen guide li alquran ni wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata waye bu nekké ci rew mo xamni lu way neex wax lu way neex def baxul nitu yàlla kenn du ko attaqué képp ku attaqué nitu yàlla attaqué nga yàlla guerre te Cheikh Seydina Mouhamadou safa ci nitu yàlla yi la bokk nañ ko bàyyi xel te wattandiku sunu làmmiñ képp ku bayal sa làmmiñ mu lekk la man sama tandajaa ku noppi mucc waaye al sumtu ila salaam noppi dana jur jàmm waaye ku moytuwul ñi ci sa ginnaaw di la jay ngay jayaxu ku moytuwul ñu nan la yaa man ku moytuwul yaa fi raw ku moytuwul sañ nga ko di nga dugal sa bop ci kamb go xamanteni bi kenn du la génne te député bi di ami ñay dugal na ci boppam kamb go xamanteni bi di ko génn kenn xamul li ko dal yi yépp dóoree ci ensemble ak ci biteeg yépp ñëwagul wax naa la ko yuusu barki dem al martabatu la sa martaba du baale al martabatu la tu martaba du baali mukk daf lay attaqué foo toll kon li la war mooy yàgg naa la ko wax tuubal Cheikh Seydil Mouhamadou Moustapha ku ko xam ci yërmande gi Cheikh Seydil Mouhamadou Moustapha ku ko xam ci xol bu rafet bi boo ko tuub mu jéggal la kon li la war mooy nga tuub te jéggalu te wattandiku nag ubbi sa gémmiñ gi di wax wax naa leen ko bërki démb li taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni baatu jigéen xawra la li la ndax jigéen su meree day ubbeeku rek li war nga ñàkkar sa génn taxaw ci place boo xamante ne bi ay góor a fa ëpp di weranteeg ñoom subaa ngoon guddeeg bëccëg loolu doyewuñ leen ko ci ensemble bi waxuñu leen ngeen defante doon leen ni ngeen def ngeen taxaw jooyal seen askan li fa xew ngir su ëllëgee la askan wa amul woon ñu mën koo am waaye bu ngeen demee ensemble di xuloo di xeex di gaaruwaale di attaquer nit ñi gis nga sax ku doonu dara soo ko attaquer sunu borom woon la ko masa nag ponkal mu toll ni Cheikh Seydil Mouhamadou Moustapha yëlif ñoo xam ni mën na li liggéey ci ay minute waxuma ci ay pucele de déedéet am nañu ngànnaay yoo xamante ni bii muy allahuma yi ak kursi mën nañ li ci liggéey yow ami njaay xaw ma awa njaay nga attaqué koo xamante ni bi tey xajul ci yow ay njabootam xajuñu ci yow da ngay xaru lu xew wattandiku leen seen làmmiñ yi man sama ta najaa ku noppi mucc al sumtu ila salaam noppi dana jur jàmm waaye ko bawul nitu yàlla yi ak nit ñu baax ñi ak góor yu baax yi ngeen di yàq wattandiku leen lool jamono bu ci nekk nit a moom deretam moom deram moom dërëmam boo ko ci laalal bala ngaa jéggi siraat da nga ko layoog sa borom kon nanu wattandiku di taal ay ci sunu réew نق القران مو نيو وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم قصة يلا نيلا نين وتنديكو دي فتنه نخ اي اي دو يموك تي بوب بروم تا نياخغو تواو دا نا لاكالي توي كون ديبيتي بي وتنديكو سا بوب ني نان واخا ياو با ا لو غيس رك خمالني تين بي لا عليكم ورحمه الله وبركاته